président comité euh, conseil euh, comité centre de santé bi euh, secrétaire général exécutif bi bu ko n'y ñun ñi euh CDS ma sama sama trésorière bu ñaawul bi ah. Aïda di doomu dëkk bi nak Aïda moy doomu yaraax lolu ñi xam-xam nañ lima wax Baye Cheikh wélé ku ni la li. lu loolu nag mu feggoo ak Abdou Karim euh, Birane mbay ak euh, suñu baay bii nga xam ni moom ngeen xam euh, ñu koy woowee tonton Gérard waaye mu mu nekk suñu nijaay Ousmane nekk ku amul moroom ak suñu mag maam Ousmane xam naa ni xat-xat yee ko jàpp waaye mi ngi ak ñun bu ko defee ñu dellu siwaat ci marraine bi ñëwoon na waaye mu ñëwaat ci

dafa war a ni ñu wax ne mu tëdd nit ñi di war ci kawam ndaxte malaat bu ñëwee amatul sago donc yow yaa ko war a defal tete ko dalal ko xelam dal parce que dañu wax ne quatre vingt pour cent mooy ni nga accueillir malaat bi mooy tax mooy mu wér dix pour cent amaanaa cinq cent kese ngay def pour malaat bi donc bu ma nekkee agent de santé war a gunge sama sama patient yi ma ne bébé de l'année aussi nekk loo xamante ne dañ ko war a gunge ndaxte xale aussi bu juddoo laaj na vaccination donc vaccination bi war naa toppatoo de telle sorte que bébé bi bañ a manqué benn vaccination li ci mel ni consultation aussi maman yi nga xam ne dañ fiy ñëw di consulter wu ñu ñaax leen ba ñu bañ a ruppe benn consultation mun a def seen analyse normale ndaxte ci la ñu mun a saytu seen wergu yaram bu baax ndaxte bu fekkee ne defoo écho defoo analise yàlla def nga war a mucc mun na am ay gàllankoor yu bareelu la si daal loolu moo tax nag bu ñu nee bébé de l'année ma sawar ci ma sawar si jël ko en charge sawar si gunge ko ba mu dem ba université ba yàlla def mu liggéey mais Émile yow yàgg nga si hôpital doo demandé affectation ma ne ko population yaraa ñoo ma ko jalal may toog ak ñoom liggéey ak ñoom ba keroog ma jël fi sama retraite yàlla def nag 2000 ba 2023 ma am fi 23 ans bébé de l'année bi du 2023 la mhm. yalla def 2023 ma am fi 60 ans mhm. donc mu nek benen événement donc yoy yep lay bolé motax ñu wax ne hasard amul lepp lu yalla def rek xam ko mhm. ñu tek ci bébé de l'année bi moy ku jigéen ki papa ji ma nek tantam ndax yaayam sama mag la donc te bi ma koy jël man xawma ma wu ci woon loolu yëpp way gis nga yalla ni ko indé. mu mu nekk sama famille donc loolu moo tax. macha allah rafet na euh, beneen marraine baa ngi nii li ma sànq rek que ni Aïda mooy doomu yaraax ku wax doomu Baye Cheikh Wele dafa doy sëg euh, mu jaar nag fu bari kon li muy def war na ko mën def nekk doomu Baye Cheikh Wele war na tax luy baax ci dëkk bi nga bokk ci mbokk yi maa ngi lancé benn appel ñun ñi nga xam ni ñoo dëkk yaraax kër gu nekk woy jur ga fa nekkoon defar liggéey jaamu yàlla la xamoon kon ñi nga xam ni ñëpp dëgg la étant jeune mu ngi noonu waaye nañu bàyyiwaat xel suñu woy jur yi ci lan lañ nekkoon ñu fekk si waat leen ci loolu doomu Baye Cheikh Wele yi di Aïda jaar na croix rouge ci loxo yu bari waaye jaar dans les mouvements waaye ba tey jii boo demee ODCAV ONCAV ci jomam ak faydaam en tant que xale mu taxaw fa taxaw yu sell Aïda looloo tax bi ñuy wax ma ni man damaa copte ayda pour mu ñëw liggéey ak man ma wool ko sam bopp Aïda nekk tegu ci benn baat ba tey Aïda loolu bu weesoo nga jëlal sa bopp ni beneen marraine bi yow yaay nekk marraine am indil euh, ko nag valise bu am solo comme bi tata Émilie indi vraiment li ngeen def ci dépense mën nañ ko tudd mais buñ ko tuddee yàlla ca dañuy ragal cat topp leen yàlla na leen cat seexu ay da lan ngay wax ci bébé de bi lan ngay wax ci comité exécutif bi lan ngay wax ci nekk marraine bi waaw am contentement rek tout d'abord ñu ngi nuyu téléspectateurs yi ñuy suivre ñëpp à travers TV CPTV ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci teewlu bi di jaajëfal di leen dalal bu baax Je suis contentement ba nga xamante ni am na mais amul vraiment mbégte la fierté la en tant que membre CDS RIS hôpital Nous avons woote wàllu di def promo promotion hôpital bi lancé bébé de l'année 2023 am ñaari bébé Tata nekk benn bi ma bi day wane ni ñun nit ñi ñun nañ ba ku ñëw fekk si ñu aussi dooleel nga ñu te ñun en tant que doomu yaraax juddoo fii màggee fii lépp lu yaraax bëgg rek ñun bëgg nañ lépp lu ñu mën muy suñu doole man dama naan soo bëggee jàppale sa population aajawul sax moyen parce que romb sa mbedd mu débordé nga am sa ñaari loxo am sa kàttan ak sa wér-gu-yaram nga fexe foofu set wala nga wut ku la jàppale nga ranger nga romb luy yàq wala luy dégénérer si mbedd mi romb fil bu mën a gaañ nit nga déplacé ko rek pour man jàppale nga sa dëkk rawatina nag yàlla bu la mayee yenn sutura yi xam nga yenn sag gi ba nga mën fépp fu nga xamante ni yaakaar nañ la si rek suñ borom teg la loxo nga mën fa dem ak ni nga ko mënee te doo gaañ sa bopp doo gaañ keneen doo frustré say nawle aussi loolu contentement la di remercier ñi nga xamante ni ñoom ñoo initié lii mu nekk initiation ba nga xamante ni population Hann yëpp dañ ko rafetlu machallah di ñaan mu baña doon suñu dernière bébé de l'année ñu am ay édition yu bëree bëree bëree bëri ba comité bu ñu renouveler rek inshallah allah rabbi ñu continuer di def liguey bi parce que population bi bëgg nañ ko té rafetlu nañ ko machallah ma xaar ba ci kanam rek ndax ñu nekk nii comme ñu ngi doog commencer di ñaan ñu tambalé ñu jéxal ak alhamdoulillah rabbil alamin di comité di féliciter tamit suñu docteur xam nga ak personnel de santé bi yëpp jàpp nañ ak euh, population bi aussi ñëpp ku ko dégg rek def nga sa intervention intervention yi jugee na fu ne lépp lu ñu mën rek tey doomu yaraax ñoo bëgg centre de santé bi doomu yaraax ñoo soxla développement centre de santé bi doomu yaraax ñoo bëgg centre bi jóge si centre dem hôpital te mën na ne incha allah yal na yàlla yeggali yéene bi incha rafet na rafet na lan lan la def ci yow ak lu mu lay fàttali ak euh, lan nga war a wax ci lii. alhamdulilahi rabbil alamin ndax li ma war a wax bari na ndax bu ñu xalee hôpital bi suñuy bàyyi ñoo ko yoroon Alaaji Kaam gay Baye Cheikh Gueye mag ñooñu ñoo fi nekkoon samp hôpital bi bëgg hôpital bi buñ fi jógee ñu teg ko ci loxo Serigne moom mu def fukki at ak nun centre biy dox bis bi Serigne Mor jógee daam yor ko centre bi dox ma ànd ñoom léegi ngeen ñëw di doomu yaraax dëkk yaraax juddoo yaraax bu ñu nee yaraax bu ñu tuddul sa maam tudd maamu aka kon yaraax am na lu rëy lii nag du fo du hasard it ndax it hôpital bu toll ni bu yaraax ñi fi aw docteur yi fi aw yëpp la dale si docteur Ndoy docteur Mbay Fay ñoom wàdd ku nekk bay nga sawaar bi loolu jeexee docteur Binta Jeey ñëw kenn xamewu ko wax kenn xamewu ko coow liñ ko xamee mooy bureau fii lii na ngeen di def ndax li ma ci gën a neex rële relais bi ngeen di def boo fi nekkul biraana a ngi fi bu fi biraan nekkul akaa ngi fi bu fi nekkul ay dawele ngi ba pare itam li may wax toujours yaraax hôpital bi ñun ñoo ko moom ñoom émile docteur yi fi nekk yëpp dëkkuñu yaraax ñi dëkk yaraax mooy nun nun ñoo war a taxaw bëgg xeex ku nar yàq ñu wax ak yow xexal yow rahmaani rahim genn ci alhamdullilah rabbil alamin imam defal ñu ñaan kon mbokk yi <clears throat> ñu ñu ñaan liñ fi taxa dajé ndax yalla def ci jàmm def ci sutura bébé yi nga xamné ne ñoo juddu nekk ni yalla def leen mag mag yu am ñam seen yaay yi tamit may leen wergu yaram seeni waajur yàlla may leen lu leen mën a yore ci wàllu bu ne loolu nag dañ koy ñaan yàlla bi nga xamee ne moo leen fi indi moom moo yore seen lépp macha allah bu ko defee ñu muslu seytaani jàng fatiha falaki ak naasi salaatu bu baay mun ñu yàlla ñu ñaan yàlla mu defal leen jàmm àddina ak jàmm àllaaxira boole ñu ci ñun yëpp nag tëje ko salaatu bu waay moon dañu dugg ci at mu bess muy année 2023 di ci profiter ci occasion bi di leen souhaiter nos meilleurs vœux di ñaan yalla mu defal ñu atu natangé sutura xewal ak wér ak koppar yu bare bare bare voilà donc euh, ñu fekk déwén yu bare bare aussi waaw tay nak ñu am fi ñaari bébé de l'année euh yo xamanteni fi lañu juddo ci hôpitalu euh, euh, Yarax bi ñu ko wax centre de santé Hann-sur-Mer ci maternité bi et ñu am euh, présence su euh, personnel bi yëpp tey ànd ci ak CDS bi comité euh, de développement sanitaire ñoo xamante ni ñoo teewal dëkk bi ci biir hôpital bi war a jël xale yooyu tey jox leen ay teranga muy benn góor ak benn jigéen lépp nag nekk ay symbole yoo xamante ni tey mun ko mënoon bépp doom fi juddu tey ñu defal la lii. askan wi fii ci biir hôpital bi yooyu ñu may ko loxo e moom it mu am taxawaay bu am solo bu muy taxawee ci li nga xamante ni mooy eh, Hann Bel-Air gépp ci yeneen fànn sax yu dul centre de santé bi mooy buñ ci accès dinañ ci dañ koy yaatal mais nag mënuñu commencé joxe parole bi te gërëmuñu et eh, vieux Gérard Niang mii aussi ngeen meel ñu ko loxo Ousmane Niang Ousmane Niang la tudd waaye Gérard bi la ñu ñu gën a xam moom it depuis loor ay ati at at mi ngi fi di gunge centre bi ci taxawaay bi surtout ci wàllu euh, sociale bi et imam Diatta aussi mi ngi nii moo doon def ñaan teewal fi dëkk bi ak suñu euh, mbokk yu baax yi teew kon ñeen ñëpp mbir mi noonu la demee ci turu médecin chef docteur Binta Dieye mu ngi nii ci lañuy waxé ci lañuy ñuy parce que yalla dogal na kaddu gu mujj gi ci kër gi mom la ko yalla jox mbir mi nek lu mu rafetlu mu neex ko lol motax mu tew tay té dinañ ko jox kaddu momit aussi buñu ñu ci mom buñ ko jox kaddu dinañ wax et eh, ci mom liñ ci xam et eh, di la gërëm ñëpp tout le personnel est là maîtresse sage-femme mi ngi tok euh madame Fay. tay li xew ni ci service am la xewé moom it dina dugg incha allah dinañ ko euh, présenté may ñëw di wax ne ñaari marraines yi aussi ñoom it dinañ leen jox kàddu parents yi dinañ leen jox kàddu mooy ñi nga xamante ni ñooy waajuru xale yi moo xam ku góor ki wala ku jigéen ki mbir mi samay doom lañu samay doom lañu <laughs> voilà aussi ñu def benn remarque kii di Daba Dieng papam fi la nekkoon muy moor Dieng xam ngeen ko yàlla na ko yàlla yërëm Yalla xare ko àjjana firdaus ak bépp way dawl bu mu fekk ak bu ko fekk tay c'est un grand plaisir tay dom ñeu accoucher ci fi et bokku ci bébé de l'année bi mu sànni ci ay kàddoom suñu paree ñu jox euh, docteur Binta Dieye mu dalal gan yi ndax adina non la bindo xamné itam ci walu bi nga xamé né mom la centre bi taxawé ni tay ci ay nit ñu juddoo fi ci biir dëkk bi ñu di leen jox ay kaddoo an at bu bees bi yal na leen jig ñaan nañu sànq ñaanal leen wér yaram ak gudd fan ak seeni parents ak ñun yëpp waaye di rafetlu nag taxawaayu ñi nga xam ne ñoo yore centre bi ci wàllu liggéey bi ci wàllu lépp loo xam ne liggéeykat dina ko def parce que yalla def suma collègue suma lepp moy Émilie bi nga xamé né tay mom ci marine ñi la bok té ñu bokk intersyndical de collectivité territoriale fi mo nek délégué bi fi ci centre bi ñu and di liggéey xamoon na ne amoon na lenn waaye dina ko amaat xam naa ci gëtan di leen nuyu gi leen bu baax a baax kàddoom Euh, assalamualaikum maa ngi leen ni nuyu yeen ñep wa ma ngi nuyu suñu papa bi tok euh Gérard koy nuyu di di rafetlu taxawayam parce que mom ci centre bi la bok lu fi xew rek mu taxaw ñi ngi nuyu aussi imam Diatta di rafetlu euh di nuyu aussi suñu ñaari bébé dalani ak seen parents yi vraiment di nuyu personnel de centre bi yeb nak waaw di nuyu aussi comité de développement sanitaire bi nga xam ni vraiment ñoom bi ñu commencé liggéey ci centre bi yàggul mais yàlla def na ni jubaale nañu waaw nekk nañ ay nit ñoo xam ne ils sont vraiment engagé pour jàppale ñu ci liggéey bi waaw loolu aussi bokk na ci euh, li tax tey journée bi tey ñu ñu dajaloo ñu ñëpp fii parce que ni jéem a dajale euh, ay kado jox ko ñaari première bébé yi nar a juddu ci centre bi bébé bu góor ak bébé bu jigéen

waaw ñi ngi ñi ngi kontaan nag trop ah si li ñu yàlla xéewale ah may ñu am eh, ñaari bébé comme ni ñu ko bëggee woon benn bébé bu góor ak bébé bu jigéen di leen ñaana yàlla may leen fan gudd ba ànd ak wér ñu dund ba taxawu seeni waajur dund ba sax yàlla def ñu am ci sax benn docteur mu ñëw mën a reprendre centre bi ñu ne ah macha allah kii moo fi moo nekkoon mus na nekk premier eh, bébé de l'année waa loolu yëpp yàlla mën na ko mën na ko def ñu fexe xale yi ñu déclaré leen waaw fexe ñu déclarer xalé yi fexe xalé yi ñu suivre leen ñuy def seen vaccination bi ñu respecter ko respecter seen suivi seen scolarité loolu yëpp daal ñu ngi ñaan maré ni vraiment ñu ñu taxawu ci daal voilà lii nag ñi ngi ñaan yàlla mu mu bañ fay yem que chaque année rek ñu am lu gën a mën a jëm jëm jëm kanam centre bi gën a mën a jëm kanam population bi gis gis ci seen bopp parce que loolu rek moo am solo parce que ñun population bi rek moo ñu tax a jug voilà moo tax bëgg nañ ñoom vraiment ñu gis seen bopp ci liggéey bi ñu fiy def voilà encore une fois maa ngi remercier ñëpp di remercier personnel de santé bi seen sen taxawaay. yoo xamante ni jël na ko ànd ak comité am ànd ci ak médecin chef bi ak tout le personnel donc euh, Cheikh Omar, vous avez la parole. Salam asalaamaaleykum. bu ngeen ma fay. man nag balaa may balaa may commencer. ñoo ko wax ñun ñëpp. Euh, ñu ngi nuyu ñëpp beneen bi dañuy def un doigt pour suñu docteur yi maanaam waa kër docteur yi fi ne ngeen may ma ñu defal leen un dois ñun ñëpp benn baaraam ñun ñëpp deux doigts trois dix doigts yàlla na leen yàlla fay euh, dañu dañu kontaan trop xam naa ni am na koo xam ni imam dina xam limay def lan la ay moniteur de collectivité éducative lañ suñu suñu walu daara moñu gëna gën impliqué ñu xam lan moy assistance dama bëgg ngeen déglu bu baax li ñuy wax amna ko xamni bu solé mbaxanam sol ay sabadoram, mom daf koy def tiiteur fekk loolu jumtukaayu liggéey la daam fu ñu lay woo doo mën a sol t-shirt nga sol loolu mais loolu du la tee nga dëkk ci dëkk bi ngay dundal dëkk bi yaakaar naa docteur mën na témoin ñëw nañ fi ay at avant ñuy nekk ci sedes bi li ñu soxal du dara du kii moo ko mën ak du kii moo aay mooy nit ñi nekk ci wér gu yaram ak kum mun a doon parce que kiy jariñ suba yàllaa ko xam man for naa ay nit ba tàyyi ci mbedd bi ñu tëdd fa ñëpp di leen romb ma for leen indi leen fii xaw ma sax seen ay parents des fois tamit ñu dugal leen ci Facebook bi seen parents door leen gis ñëw fii seet si leen ay éléments de la Croix-Rouge am naa fi samay éléments yoo xam ni maa leen formé man ci sama bopp tey bari na njaboot yoo xam ni ñoo leen rewle ñii ñoo leen di faj ñi tabu bii ci la bokk sama loxo la jaar Eh, ñoom faatu xewee sama loxo lañ jaar ayda bii nga xam ni mooy mooy mooy mooy TGA euh, général sama loxo la jaar waxin la mooy dañu bokk fu ñu tàggatee mais ba ñu jàppee ba tey bàyyiwuñ loolu moo leen indi fii eh, liñ bëgg a wax rek mooy doomu aadama dam leen di jox benn message yéen ñi fi nekk dañ leen doyloo lool ci nit ñi fiy ñëw comme mécanicien yi nekk fii ñoom ñooy saytu suñu oto yi yéen nag ay mécanicien nit ngeen képp koo xam ni tiim nga sa orbor boobu war ko war war ci def li la war boo nekkee ci leneen ba leneen am ci du yàgg kenn yàgg sa boroom la da ngeen waat moo tax ñu ñu ñu fonk leen ma leen di wax tamit benn balaa may ñëw ci yii parce que tey c'est le moment ñu bari xamantewuñu Nous bari dañuy rombanté du présentation buñuy wax maay lii loolu soxaluñu Aïda bii mooy de mooy mën ni suñu présidente ñun mo gëna nek xalé mais jambar gi mu doon lepp luñuy def mok biraan mi biraan nga xamni Mom lañuy wax mais dama koy def il faut ñu nangulante parce que dañ lay wóolu nag bàyyi la ca nañ la wóoloo nga doxal sinon bu échec amee yow yaay rendre compte tey docteur mii mooy suñu yaay ñun ñëpp docteur Thiam mooy suñu papa ñun ñëpp dañ koy nangu bu ñu ñëwee fii lu mun a am ñoom ñi kat ñooy suñu wayjur mais man mën na am am na ñu ma dajalul mais ñoom ñaar ñi toujours ñu daje xam nga luy daje bi docteur lii waru fi am lii nàngam duma leen bàyyil dara waaye ñu may ma ko nag ci xol bu sedd guy kon ndegam ñaari wayjur yi ñooy wayjuru hôpital bi nag ñoo may loolu comprendre ko te Aïssatou Missel waxatuma heure bu ma woowee ci nit lay wax mooy dañu war a jàppale diw dañu war a def diw pour dañu war a def pour nit ñi faju kon ku fi ñëw jël sa sac rek xam nañ ni yéen a ngi ci wax naa ko ci ay ondes yu bari ma ni engagement personnel sanitaire bi am na engagement CDS am na engagement maire yi ak li ko wër am na engagement population bi la ñuy xaar engagement population bi nag mooy ñu wan leen lu tax comme bu ñu feebaree fii la ñu war a jëm xaalis rek la ñu yoraan ah di fay ñi ngi naan maris ñi ngi naan bu guddul woon dama leen di wax li ma diagnostiqué ba tax ku nekk di dem fi nga war a dem am na loo xam ni ci ñun la am na loo xam ni ñàkk xam la mais loolu après dina am yeneen audience publique yoo xam ni daañ ci waxtaan foofu la centre bi toll foofu la dëkk bi toll bu ko defee nag ma ñëw ci cérémonie bi docteur wax na ko waroon nañ fa sax yam mooy bi ñu ñëwee ñoom confiance bi ñu jox ñun parce que CDS yi xam nañ nu muy demee bu ñu àndul rek yàq na te li ñuy àndee it warul nekk tappaleeg falaa falaa dëgg la war nekk mooy lu amul dañu war a wax ni nii la demee nii la demee ñi ngi ci effort yoo xam ni dara taxul ñu koy def suñuy doom suñuy yaay suñuy rakk fii la ñuy muccee fii la ñuy fajoo fii la ñuy defee seen lépp kon fii lañ gën a bëgg bu ma jógee ci ñii ci confiance bi ma wax ni dëkk bi jox nañ leen ko bu leen laam-laameeti ndax dëkk bi jox nañ leen confiance bu leen ko laam-laameeti jàpp leen ni am na ba mu mat ku dugg ci les amis di centre de santé di nga xam ni dëkk bi jox nañ leen confiance bu kenn sax gëjee ci dëkk bi bu waxee dara am na keneen ci dëkk bi ku ko naan jaar naa fa démb mais loolu ngay wax te des années passées mais fi mu ne nii macha allah kon nag ngeen yëg ko yëgu leen ko yéen a ngi ci kaw bu ngeen wàccee seen bopp kooku seen affaire la ma moom ñi ma jot a xam damay wax ni sama mbaxane mii lu ma col bii sonalu ma bu ma duggee fii ceci n'est pas normal li ma war a wax ak docteur danaa ko wax gis naa kenn de nàng mais am na loo xam ni ki koy def ci sa kaw laa jëm parce que ñëwuñu fii comme marché ñëwuñu fii comme leneen ñëpp nag nee nañ léegi accueil bi macha allah te pourtant liñ ci bëgg amaguñ ko ñun mais ñëpp nee nañ macha allah ñëpp nee nañ service yi tabaarakallaaw foo ñëw gars yi dañ lay assisté ñëpp nee nañ hygiène bi am na mais bu taxee ñu teg nag suñu socc wala suñu njegenaay yàqaat nañ liñ defoon. ma ñëw ci benn nit le grand Maodo man bi may ñëw fii moo ma dalal bokk na ci ñi def effort ba ma ñëw fii. songuma par force da ngay ñëw par force da ngay ñëw par force da ngay ñëw moom dafa am loo xam ni ma seedeel leen ko ma wax leen ko aw ma nag pour rendre compte kenn mais pour libérer nit ñi dimbali leen ci liggéey man ku nekk dama ciy dajeeg yow mais lu ma xam wala di ko def wala ñun ñii rek moom mii moo ñuy orienté mais pour mu orienté ñu dañuy téye ba mu dëgër mu téye ba mu dëgër après ku nekk ni pourtant lii lañ ci jublu woon kon ñi koy fekkee wala di ko dégg nañ dem ci seeni liggéey loolu du seen problème dégg ngeen ma ku ko ci fekkee wala nga dégg ko du sa problème ñun noonu la ñuy liggéeyee ñun dañuy téewante ba mu dëgër du nii nii la yéen dem leen fexe assister ñiñ leen sant nit day yem ci liñ ko loo loolu nag beneen la docteur taxul may wax taamili taxul may wax tonton taxul may wax mais doomu aadama yi ku ne bu nekkee ci service am lépp dox loolu rek lañ leen bëggoon seedeel ci jëmm ji waxoon naa ci biraan ci aka damay ñëwaat ci biraan biraan mooy centre bi ñun ñëpp amuñu jot biraan mooy centre bi day war a liggéeyi ma ni ko nangam mu daw si ñëw docteur keroog da ko seede cheikh biraan nag sonn na ma ni kon alhamdulilahi rabbil alamin biraan yàlla na la yàlla fay vraiment ñun amuñu benn discussion vraiment dama koy ñaanal yàlla noonu la Abdou Karim Abdou Karim ñëpp a xam ni man lu may xat-xat ku xam samay activité Abdou Karim ma gën a xat mais biñ ko waxee lii tegu ci baat moom tamit pour wax leen comité bi fi nekk ñi ñu jotagul dem ci ñoom ñu wax leen ni ñëwuñu fi pour ak jënd wujjante wuñ utuñu xarit liggéey bee ñu fi indi. fa wax yu rëy ni ma li ma naqari mooy sama sëriñ dem na léegi te fekkantewu leen kon wax na ko ndey li liñ ci jublu mooy ñaan barke imaam yi fii lañ toogoon. ñaan fi bi ñu ñëwee fii lañ toog def benn dimanche yaakaar naa musu fi am wala mi ngi fii door am wala ñaaral la ñaan fii kon am na yeneen ak yeneen ak yeneen service bu nekk di nga gis sa bopp te loolu yàlla seede na ko incha allah bu ko defee nag li ñu ñaan rek ci suñ bébé yi ñu wax ne yàlla nañu dem ba téye hôpital bi loolu lañu yéene bu ko defee du ñu guddalati ndax suñu discours ñun du bisu tey bi mais présenté wu woon ak sedes bi wan nit ñi ñun ñii ngeen doon dégg yéen tamit lañ doon dégg ñu jàppante ci liggéey mais liñ fi war a wax ñii doon coordonné ak ñoom docteur ak ñii ñëw ñoo koy wax bu ko defee ngeen baal ñu àq groupe boobu nag di les amis du centre de santé yaakaar naa ñii dañ leen respecté dama kontaan ci docteur Thiam dama ko mu ni ma mais Cheikh lépp luy doxal liggéey bul ma ko wax dugal ma rek dugal ma bu jarul nga ma koy wax loolu c'est des gestes forts. ci groupe bi vraiment bi mu soogee ñëw li mu njëkk a def mooy wan leen ma waa dëkk bi képp ku disponible muy man ak Aïssatou Michel ak bàjjanu gox yi yóbbu leen ma ci tuuru jigéen ñi ma giseek jigéen ñi. ba man mii ànd naa ak moom kër Daba Tambédou mii ci mbootaayam boobu mu présenté wu waxtaan ak ñoom wax leen mooy kan ak li ko tax a jóg ak ni mu bëgg ànd ak ñoom saytu seen wér-gi-yaram donc kon loolu ku bëgg liggéey moo koy def. kon kañ yow mi nga xamante ni yaa fa nekkal sa xel war na mën a dal donc euh, kooku mooy madame Faye di koy ñaanal moom it ñu koy jox kàddu gi mu wax joxe ci xalaatam. merci Maodo euh, asalaamaaleykum euh, comme ni ko waxee man la madame Faye Ndeye Naya Diallo maîtresse sage-femme centre de santé comme ni ko Maodo waxee rek boo mën naa ne foofu lay daanalee parce que buñ nee sage-femme d'État ñun dañoo jàpp ne fa nga xam ne fa lañ la affecté yow foofu nga bokk. mën naa ne tàmbalewuma fii Kaolack laa njëkkee dem naa yenn dëkk yi donc ñun fi nga xam ne fa ngay liggéey rek fa ngay jàpp na yow foofu nga bokk léegi nag bi ma ñëwee Anne sur wax dëgg fa yàlla accueil bi nga xam ne waa Anne sur defal nañ ma ko yaakaar naa ne loolu dafa ma gën a boole si si Anne moo tax du ma si ñoom ndax foo nee ñoom rek xaw nga dàq mais dama daf ma gën a boole si Anne kon man jàpp naa ne man tey jii si doomu dëkk bi ci laa bokk moo maag sage bi nga xamante ne ñoom ñoo nekk sama ginnaaw donc di rafetlu rek accueil bobu di rafetlu sama bàjjen yeeg sama bon collègue yi ma nekkal nga xamantene lepp luñu def rek ñom sen sen loxo mu ngi ci kon awma lu dul di leen remercier ci walu woowu la ne bi wax nek na lo xamantene biñ ko tuddé ñun en tant que sage-femme dafa sedd suñu xol ndax sage-femme bébé rek la bëgg mo xam mu jur ko keneen jural ko ko ñun na nek bébé rek parce que suñu liggéey ci walu wowo la ñun japp nañ né comme niñ ko faralé di wax maternité dafa bokk ci entreprise yu yàlla bi nga xam ne mooy defar nit kon ñun yàlla moo ñu tànn pour ñu liggéeyal ko kon liggéey bi duñ ci xool leneen lu dul ne yàlla moo ñu tànn ay tànneefu yàlla lañ am na loo xamante ne ñun ñoo ko waroon a fekkee am na yoo xamante ne falee que ñun ñu ñëw am na yoo xam ne falee que suñu kàddu am si moo tax ñun jàppee ko lu dul ne liggéey boo xam ne suñu borom moo ñu ko teg te loolu nattu la foog ñu bokk ci muñ ko jàpp si mais ànd ak di ci boole xol bu yaatu ndax loolu mooy suñu liggéey moo tax mënuma wax sans me remercier les sages-femmes de l'année ñi nga xamante ne ñoom la yàlla dogal bébé bi jóg seen kanam <laughs> jóg leen les sages-femmes du ngeen jóg <laughs> jóg leen présenté wu <laughs> tabu aywa d'accord ñoom ñoo représenté sages-femmes yi parce que dañuy wax naan comme judd ndey ak baay waaye bàjjan xorom la si ñun nag dañ naan judd ndey ak baay waaye sage-femme xorom la ci moo tax ma kontaan si ñoom <laughs> aywa loolu laa amoon pour. waaw moom it moom it taxawaayam kenn du ko na natable ci commune bi mi ngi ci social bi mi ngi ci développement bi lii bi mu amee bi ñu ko waxee da ko jël def ko yëfi boppam di ko dox di ko wax ba fu mu ak si nii ñii di ay càmmiñam bi ñu ko initié wee ànd ceeg médecin chef bi dañ ko ko bàyyee pratiquement mu ànd ceeg bàjjenu gox yi ak bonne volonté yi ba agsi fii mu axe donc ci bir waxam dina len présenter ses bonnes volontés ñi nga mënu len ñak tudd inshallah allah vous avez la parole. waaw asalaamaaleykum maa nuyu ñep di digital si nuyoo bi nag suñu kilifa yi fi tok sama nijaay di nuyu médecin chef ba ki fi euh a ñew ma ngi nuyu ñep di ziar ñep defe naa fi jot wax bari na du ci dellusiwaat ni. mën nañ ci seede lu baree bare ndax jaar nañ ci hôpital bi te defe naa ni euh, tey duñ fi romb di rus ñoom tam duñ ñu romb di rus ndax xam nañ li fi ne peut-être ku nekk ci biti mën nga wax lu ne mais xam nañ ni sant bi comme li ñëpp wax rek euh, li fi ne wax dëgg yàlla nekkul feneen boo demee feneen euh, comme nii li wax rek bëgguma tudd tur ñooñu fii la ñu jàngee pour mën a dem foofu mais peut-être ñoo ngi doon xool bâtiment bi wala ñuy xool yeneen ak yeneen gis lu bees mais fi li fi nek wax deug yalla amu fen te du euh, jete du jete len ay fleur de mais dama ci xam lu bari ni dama liggéey ak ñom duñu son sonn duñ taay yow yaay sonn sa naan di onko ak yooyu lu ñu sonn duñ taay muy vaccination muy euh, euh sage-femme muy fépp daal seen liggéey macha allah kon nak liñu bëgg wax moy ñu waxtaan population bi bu ngeen démé ngeen gëna waxtaan ak nit ñi na man tay luma fi taxawé ni du euh, présidente badjenu gox dé mais les amis du centre de santé moom laa fi taxawee tey da dañoo ubbi benn groupe ba nga xamante ne pour rek jóg ci centre bi problème yi ñu am yëpp néew ma ni ñu di saafara lépp de mais luñ ci gën a euh, lu ci gën a bëri ñu saafara ko incha allah ndax ku ne xam na ni maire bi rek euh, mi ngi jàpp mais maire bi rek du doy il faut ñeneen ak ñeneen jàpp pour centre bi mën a jëm kanam ci loolu ci li tax bis bi gën a euh, taaru nii wax dëgg yàlla am na ñi nga ne waa diaspora bi lañu am na ñi nga xamante ne ñu ngi fi mais il faut ñu jukki si ñenn ñi nga xamante ne wax dëgg yàlla dañu jàppale lool lool lool muy ku mel ni Thierno Sow moom mi ngi Italie sax nekku fi ak Malick Kane ñaan ñoon ci diaspora bi lañ ne mais vraiment li ñu jàppale ci lii mënuñ mënuñu leen ko wax da bëgguñu lim lépp liñ fi jox ñoom sa bëgguñu loolu mais il faut ñu tudd leen ku mel ni Abdourahmane Camara moo fi indi ñaari pañe yi bërki démb rek boobu kii na ba pare sax dafa téléphone ni mu ngi indi ñaari pañe pour ñaari bébé yi Euh, Ibrahima Diaw Demba Gaye conseil consultatif bu maa amili bi moom nga xam ne moom moo ma jox euh, moom moo ma joueloo lii sax pour rek ma gérer ñi nga xamante ne mooy femme yi ak yeneen ak yi nga xamante ne mi ngi ci kanam yu ñu war a def ku mel ni gis nañ ko jaraaf euh, moom tam amicale des bàjjenu gox gis nañ ko mutuelle de santé fagaru tam ñoom tam wax dëgg yàlla ñëw nañ fi ak seen valise bu baax bu ma paree ci ñooñ nag ñëw ci marraine yi marraine yi du hasard ak Yaram Diop ku mel ni Yaram Diop moom tam jaar na fi indi ñu wax dëgg yàlla nga xamante ne moom tam pour bébé yi la mënuñu lim ñëpp daal mais buñ ci jukkee noonu rek wax nañu ñëpp di ñëw ci marraine yi nag ndax marraine yi tam du hasard ku xam Aïda Wele xam nii du lu mu nekk sama cousine moo tax de ndax man comité bi ñëpp samay mbokk ñoo fi dellusiwaat kon man maa ngi ci biir Aïda Wele sama cousine la papaam ak sama yaay ñoo bokk benn baay mu nekk sang ba nga xam ne bu am jom la nag te damay waale tey ji ñëw joxel ko valise bi ci kanamu ñëpp moom moo fi indi valise ba nga xam bële ba nga xamante ne dinañ ñëw mu teg ko ci loxo ñëpp ñu xam ni marraine bi moo indi valise bee beneen marraine mooy Émilie mi Émilie Ndong moom tam dina taxaw fii léegi indi na enveloppe am te dinañ xam na eh, ñaata la indi indil na ko eh, kiyam ki mu marraine waaw tàccu leen marraine yi bu baax a baax a baax te moom bu pare dina leen expliquer marraine bi li tax mu taamu ko moom moom dama koy jox micro bi après moom moo koy waxal boppam mais daal di leen wax nii les amis du centre bii bu sooba yàlla li ñu fas yéene dañu woon nañu stand by lépp topp euh, bébé de bi ba mu jeex bu paasee nag moom li ci kanam yéen di ngeen gisal seen bopp bu soobee yàlla xam ne ñun ñëpp ñoo bokk yaraa kontaan ci ñëpp lu ma juum nag ngeen jégal ma ko xam ne rek ci man la wax laa mënul bu baax rek ngeen baal ma. di dem di dem di dem ba ak si benn stade bo xamantene fep fu waaye jóge rek ñom nga yara ndax prise en charge personnel bi dafa baax palu dañu wax ne ñun ñoo si mun ñu am ay résultats yu baax ndax supervision yi bu ñu ñëwee au niveau du laboratoire plusieurs supervisions am nañ ko te docteur mën na ma sédé ñu am ci 20 au niveau du palu donc lolu muy fierté man bima ma fi depuis 2000 ba léegi plusieurs camarades ont quitté Ni demandent une affectation dem ku nekk di affectation affectation dem man ne suis man une population Yara ci la bok. ndax te village donc ma xam lu ñuy ma comprendre len ci tamit ñu ma Cheikh Omar les amis du centre de santé de anne defuma dara lu dul rafet la ko mu ça vient à son heure parce que aussi dafa am des non-dits dans cet hôpital là ñu bëri dañuy wax loo xam ne leeru leen lu bëri ñu ngi xam noo xam xamuñu ko donc lii dafay tax bu ñu mën a def de dialogue intercommunautaire nga xamante ne personnel bi dinañ exprimer wu population bi dinañ exprimer ci lu ñu bëgg leen fan waaw waaw waaw beneen ba ca top. Ibrahim, mi nga xam ne moo jur xale bu jigéen bi bébé bu jigéen bi di nekk sama doom ma nekk tantam donc li ñu wax hasard amul loolu moo waral ma tànn ne 2023 bi bébé de l'année bi cëral naa ko sama bopp. donc deuxième plan d'action bi fii laa koy jëlee mooy la mutuelle de santé pour ñu taxawaaraat ko organiser waat ko pour nit ñi inscrire en mas ndax hôpital bi gis ci njëriñam donc loolu mooy sama deuxième.

contentement ba nga xamanteni amna mais amul fu mu vraiment li initiative bi ñu jël CDS bi personnel de santé bi les amis du centre de santé képp nga xamanteni initiative bi rek promotion hôpital bi nga xamanteni des population bi dañoo du moy hôpital bi xamuñu qualité hôpital bi bonne volonté yep CDS bi personnel de santé bi dañoo ni ndimbal na sa fekk loxol borom motax tata Émilie nangu nek marraine bi ñëwee doole ak yéné ak bëgg gi mu bëgg hôpital bi mu manifeste que à travers li ñu ko proposer hésité wul sax mu ni kenn proposer wu ko mo ni mom moy marraine bi man aussi sous la proposition de Daba Sall hésité wuma parce que dama xamante lepp lépp doomu yarax mo siy gagné te man en tant que acteur communautaire lépp lu nga xamante ni gis naa ko à travers la nga xamante ni day def développement day day day suqali suñu gox ñun fii rek lañ am fii la ñuy tiitaroo dëgg la yeewoo ma fi mais maa ñi fi yeewoo ñoo bokk bëgg-bëgg ñoo bokk ay ambition bëgg nañ suñu ay parents yi nga xamante ni ñoo nekk fii suñu ñëwee fii ñu fekk fi personnel bu mucc ay ñu fekk fi la nga xamante ni lépp ñu ngi koy war ñu dem ba hôpital bi euh, yéene bi la ñu dem ba centre de santé bi nekk hôpital mën naa ne parce que bëgg-bëgg yi mu ngi fi il suffit juste ñu gëm ko xam nga di ko doxal li ñuy dàq mu jëm si àll bi ñu koy dàq muy ñëw fii parce que ñun ñoo siy bénéficier waat di ñaanal bébé yi ak maman yi ak seen parent yi yàlla may leen longévité xale yi ñu dundute barkeel mu doon lu leen jig parce que vraiment dañoo ñëw ak yéene rek xam na du ñaan aussi ñu bañ a yemale affaire bi fii initiative bi ñu topp ko mu nekk la nga xamante dañ koy def ay édition yu bëree bëree bëree bëri xalé yi aussi am suivi ndax xamna naa Tata Emily mom wóolu naa ko si si suivi ngeen may ñu lolu rek nga xamante ñu approcher bébé yi ba li nga xamante comité bi ak les amis du centre ak personnel bi bëgg nañ ko moy li xalé yi am suivi xalé yi am suivi bobu nonu moy dañ leen di topp seen processus ba kérok ñi nga xamante ñi ngi ñi ngi majeur wala ñi ngi mënal sen bop ngeen may ñu lolu yàlla tamit yombalal leen lu ngeen leen yore te ñaanal ñëpp daal ñi teew ak ñi teewul initiative bi bañ a nekk la nga xam ne day yem fii ñu ngi leen di jëfal bu baax a baax di remercier docteur tamit ndax vraiment taxawaay. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ziar di leen gërëm di leen sant di wax ne hôpital bi yàgg na man yàgg naa fi ñëw dippi xale di gërëm Magne Sidibé at dem si yàlla Ndey Sidibé yàlla na ko yàlla yërëm. xaare ko na bépp doomu yaraax ñu bëri jaar nañ fi ñun xam nañ lu fi nekk vraiment fii am na hygiène man yàgg naa fi ñëw di gërëm xale yi ñoom ay si ñëpp bàyyiwuma kenn ku lim juum di wax na nag lii nag yàlla la quoi dañ koy bàyyi ak yàlla rek di ñaan yàlla lii yàlla na yokk malaat yi fi nekk tëdd nag yàlla na leen yàlla may wér-gu-yaram gudd fan ñëpp ànd ak wér accident bu fi am barki démb yal na yàlla yal na fi gëj yàlla bu mu fi am képp ku si gaañu yal na yàlla yóbbu àjjana képp ku si am uh, loo xam ne yaa ngi waaj a tane yal yàlla wéral si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bon lii moom rafet na lii moom yàlla rek yàlla rek yàlla baax na quoi yal na nekk lu njiglaay xam gën suñun macha allah alhamdulilah maa ngi dëkk en village Yaraax fii nii. waaw ñii ñëpp samay raq lañu ko quoi sant yàlla bu baax a baax a baax di ñaan yàlla yàlla nañ ko teewaat ay ati at maman bi lu mu wax nii tamit yéen ñëpp invité naa leen si tudd bi waaw ku ñëw yàlla na la yàlla bindal yiw ku mënul ñëw tamit yàlla na yàlla bindal xam tànk yow mu yiw alhamdulilahi rabbil alamin macha allah jërëjëf. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul gàcci ngala ma Cheikh Ahmadou Karam Mbacké asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp di santaat yàlla bu baax di julli ci sangu-sang ñi Seydina Muhammad di ñaanal Serigne Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool te ma ànd ak ak kilifa diine yëpp ak kilifa aada yi di am mbégte nag bu baax ndaxit xol bu sedd lañuy ñuy waxee waaw ku ñu gis ni ñuy waxee nga xam ne suñu xol dafa dafa dafa sedd lool di nuyu Cheikh Omar Sall mi taxaw suñu wet di suñu kilifa. di sunu kilifa si daara ji di sunu lépp di ku baax di ku oyof may ñaan ñëpp na ma ko ñëpp tàccul rek waaw waaw day day nit ka day nit ka nga xamante ne olof day faral di wax ne nit yomb na mais nite moo jafe moom na yàlla da ko may rek mu nite kon ñu ngi koy ñaanal li mu bëgg liggéey si hôpital bi moom moo ko xam yàlla na ko suñu borom sàmm ba mu yegalee ko fi fi mu ko bëggee ci barke Seydina Mohamed beneen mbégte tamit bi mu amaat mooy sama ñaar yaay yu toog muy sama yaay Émilie ak sama yaay ay Aysatu damay nettali nag maa ngi jégalu bu baax temps bi maa ngi damay waaw damay jégalu bu baax waaw ndax it lii dafa doon la xamante dañ ko war a fësal waaw ba ñëpp gis ko wala tamit ñëpp teg ci seen bët ndax ñun fi lañ dëkk yaraax fi lañ juddoo fi lañ màggee te olof day faral wax ne képp kuy ki képp kuy jéggaani sa dëkk daa tëggul waa dañoo bëgg lancer nag message ndax lii sax dafa xaw a ndaw man bu ma ñuy sànq maanaam cérémonie bi dafa dafa xaw a ndaw waa ndax man nag dama damaa xaw a waane damaa bëgg rëy waaw ndax li ngeen li ngeen def dafa rëy barki Seydina Mohamed li ngeen def dafa dafa rëy lool di njëkk tamit si sage-femme yi nga xamante ne maanaam ñoo doon taxaw keroog soxna si bi muy am doom nit ki ni mu ñëwee rek boo xoolee kanamam di ko xam ñoom dañoo oyof nañ te it métier bi ñuy liggéey bëgg nañ ko 2011 laa li expliqué 2011 xam nga nekkul tey mu ngi si 12 ans ren fukki at ak ñaar damaa tawat tawat tawat bu métti feebaru tuberculose waaw xam nga ne tuberculose moom amaana suñu borom ku ku nekk la koy teg bi ma ko tegee nag mu xool ma jaaxal ma yéex koo xam da da dafa si man 6 mois ñu ñaama ngelawu seytaane ma la dugg ak maaraay lekk sama xaalis. fu ne ma dem fa si àdduna fajoo naa fu ne mais bi ma yàlla woo matale ba mu ñëw si hôpital bi fekk fi sama yaay Émilie ak sama yaay ay ay ay ay satu ñu taxawuma mais billaahi wallaahi taalaahi dama ne ba samay mbokk sax ñàkk si man ñàkk si man yaakaar su ma doon jóg pour pour dox dañ may may loxo su ma doxee ñaari pas damay damay sonn mais kon hôpital bi bokk na si li nga xamante ne moo sauvé sama bakken kon yàlla bu ko jaarale comme si ñii bés bi tamit ñëwaat day day doon sak si man te day day day doon sant ci man day wax tamit suñu yaay Émilie na ko sunu borom moo ko delloo cër gi moom waaw ndax man man ak moom day bokk ci biir bokk ci biti di wax tamit ne ko doom ji doomam la doom ji alalam la doom ji bis ni ki tey lépp lu mu joxul kàddu comme ci doom ji ay waajuram duñu joxe kàddu waaw waaw waaw waaw lii lii moom mën a ñàkk moom lii mën ñàkk ndax na moom lu fees moom faa mu tuur mais nit ki moom na nga jàpp si àdduna moo xam lu baax la moo xam lu bon la lépp looy def même bu doon dangaa nekk ci miir ba nga xamante ne maam dañ ko miiree fukki miir ak ñett nga nekk si ginnaaw miir bi di ko di ko def muy lu baax bés dina ñëw suñu borom gi génnee ko ba ñëpp gis ko mooy lii maanaam moom bi bi may taxaw moom xam woon ne bis dina ñëw suñu borom jaaral lii ko comme comme ci moom. waaw moo tax it man lépp la nga xamante ne dama ko moom ci sama sama doom ji dama ko koy joxaat waa ndax wax naa la dañoo bokk ci biir bokk ci biti moo sama waaju bu jigéen dañoo bokk dañoo bokk ci saayir bokk ci baatin suñu borom tamit ñëwaat joxaat ko lii kon dañ koy sant bu baax di di ko ñaanal yàlla suñu borom bàyyi ko fi bañ bañ nettali dara ci ginnaawam. ba mu ñëw muur ma sama sama doom ji ñu koy jox borom këram ci bàkki sëriñ sëriñ laa Muhammad waaw di jégalu nag di jégalu bu baax a baax a baax di jégalu di santaat sama mag jee toog muy Awa Diop soxna Awa Diop soxna Awa Diop tamit nekk tamit si hôpital bi doon sama mag doon doon sama lépp ñu ngi koy sant bu baax di sant tamit kii kilifa gi toog jëlal ma ko ku baax kii kii toog nii ki toog nii kii toog nii jëlal ma ko waaw jëruñ Lamine la jëruñ may la ma ko loxo jëruñ Lamine xoola sama sama soxna fa laay gàttalee wax ji maa ngi jël lu baax nag du baatin du nekkul dara aw ma baatin aw ma dara fi mu toll nii suba bu ma xëyee lii nii dama koy dama koy summi damay sol peew damay sol simis damay damay sol lépp waa mais dama xam rek diine ak ak jamono sama soxna bi mu tollee diggante ñëw ñëw na ma tubaab bi may suivre nee na yàlla mun a dogal ma am doom la 31 décembre billaahi loolu mu wax ma wax ko lamin mu ma na na sa xel dal te xam na ne dina am doom le 31 décembre waaw maam nekkul baatin de du baatin mais xëy na moom am na lu ko lu ko suñu borom dégg biñ may woon na ma sa soxna dafa tollu diggante maa ngi koy wax démb eh, Cheikh Omar Sall borom daaru moo ñëw démb moo tudd sama doom démb dafa dem rek rek Cheikh Omar Sall ñëw te instant biñ may woon na ma sa soxna tànk yi daa xaw diis maa ngi ci wetu borom daaru toog kon dara du hasard démb moo waxoon na ko ma dimanche moo waxoon na ko sama soxna daa am doom démb si guddi te moom lañ jox bébé de la année bi maanaam mu am ci mbégte lool na ma bisu tudd bi maay ñëw te maay xale bi te ñaan naa yàlla fekk fekk faak waa hôpital bi waaw mais man démb daal loolu rek moom moom si tuuse mooy li fa fekkul waa hôpital bi waaye nag dinaa ko maanaam dinaa ko jàllale message ba li moo def si hôpital bi mu def ko ci baatin si àll bi dañuy defar hôpital bi ñun ñoo si njëkkee ñun nag sensibilisation bu dul jinne def nañ ko ñi ngi dégg lu baax ñi ngi dégg lu bon parce que population tamit kenn moomu ko dañ koy wax man mi dugg si dëkk bi man dinañ ma yóbbante ay nuyoo dinañ ma yóbbante nangam ak nangam kon donc ñun dañoo war a mérité lépp ñun dañoo war a mérité lépp yaa ngi dégg gis nga fii kenn moomul kenn gis nga malade bi ñu fi recevoir ñu accueillir ko benn accueil yi ba nga xam ne neex na barke Rasulullah boo demee dina la yàlla ane diw ane diw ane diw bi en présence du médecin-chef du centre et de la maîtresse sage-femme de la maternité l'assistante sociale Aïssatou Michel et il est bàjjenu voilà macha allah am na am na solo am na solo. <laughs> am na solo. <laughs> ok kon nag euh, mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp kenn ku ci nekk eh, ci sa teewaay ci bis bi donc euh, li ci des après dinañu def euh, dispatching bi ñoom bàjjan yi ak organisateurs yi ci diggante ñaari marraines yi pour mën leen a jox cadeau yi yëpp ci kaw taabal ji donc ñu ngi jaajëfal ñëpp di ñaanal bébé yi def leen mag ñu fekkee seen njëriñ ñun ñëpp amin amin amin amin amin amin loolu warul tax ngay daw liggéey de <laughs> voilà kon kon bobu bobu mom moy euh, bobu moy pour bébé bu jigen bi hein. ah ah yaay ji yaay ji ak papa ji sax ci cadeau yi ma sha allah kon nag euh, sedd bi sedd bi euh ñom mën nañ ci mucc Waye nak maîtresse maîtresse yaay ji jël ko ci souf. mu seet si la parce que utal nañ yaay ji ak papa ji mbàjj ah <laughs> invité leen invité leen dégg nga euh, bu bu góor bi mom lañuy jox kadoom noonu buñu ñu aussi ànd na ak enveloppe bu and ak euh, koppar macha allah am solo voilà donc. Euh, Donc, euh, enveloppe de 75 000 plus les bagages. Donc, il y a que c'est une Ça va bien. Yeah. Uh-huh. Ah, Masha'Allah. Donc, euh, même les sages-femmes qui ont assisté à un euh, euh, bébé qui est naissance, nous ont fait un cadeau kenn nous ñaari sage-femme la assisté donc nous tissu pour sage-femme bon solo mais toutes les autres sages-femmes sont contentes juste pour remercier le comité remercier ami ami du centre franchement nous sages-femmes sont franchement.